salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp laal yoon nag moo dellu si tey di leen jaajëfal ndax it eh, gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi Seydina Mouhamed sangu sang yi sallallahu alayhi wa salaam sant naa samay ñaari wayjur sant toute ma famille sama jëkkër samay doom bàyyuma kenn staff titi yee nuyu naa ñëpp ñëpp ñëpp gis naa jàppale bi ci anniversaire bi fans club bi bu ma fi dee lim du ma fi dugg waaye dama naa rek fans club Sénégal Dakar Gambie. en Italie Allemagne États-Unis Atlanta bàyyiwuma fenn nuyu naa ñëpp képp ku nga xam ne yaa ngi bëggee Titi boobu ba tey man Titi yee maa ngi lay delloo njëkkal ndax gis naa statut foto yi ñëw na si yi gis naa ko video yi ñëw na mifa yi aussi la même chose xale yi nga xamante ne barki demoo njaay leen taxaw laatal yeneen mifa gis naa yépp képp fan si titi daal titi yee kontaan na ci yow di leen ñaanal jàmm li am nag ñëpp gis nañ ko nattu moo am coronavirus moo tax ñëpp toog seen biir kër yi ma di leen ñaan ngeen toog seen biir kër yi raxasu ak saabu def protection yi ñu wax vraiment di julli tamit ñu ñaan yàlla tekki ñu nattu bi ci barkurante bi kontaan naa ci ñëpp fii laa leen def yéen lu ngeen ma yëg rek xamal leen ne maa leen raw foofu su ma sañoon tey statut bu ci nekk wala photo bu nekk wala vidéo bu nekk wala vocal bu ne ma tontu borom direct waaye nii la ko suñu borom bëggee nañ ko sante yàlla te ñaan yàlla teggi kontaan naa ci ñëpp jërëjëf.